mu bent ñu bëri ndaxte projet yu toll nii boo koy def am na lu ci jiitu mais askan bi dañ jàmmalaay dañoo jékki saa rek gis ñu invité leen ci pose première pierre buñ fi yegsee bés boobu xawoon na am sax tuuti xët xët ak population bi parce que ñu bëri yëguñu li xew ci noonu nag lañ ñu amee carrément la vraie information qui est que le maire de Yoff Issa Laye Samb a un projet de bibliothèque communale mu ne da koy defee cité Diamalaye ñii ne yëguñ ko ñii ne kañ lañ ci waxtaanal ñii ne kañ lañ ko wax ak fan lañ ko waxtaanee ak ñan lañ ci doon waxtaanal nekkul population Diamalaye ñoo lañ ci waxtaanal. parce que bu fekkoon loolu la looloo am kon jotaay bii du am bañuñ bibliothèque communale parce que wax bi tamit il faut que nit ñi xam les populations Diamalaye on ne refuse pas une bibliothèque parce que fii yàlla dafa def bëri na ñi nga xam ne ay intellectuels ñu ngi fi ay ñi nga xam ne xam nañ njëriñu bibliothèque xam nañ njëriñu école xam nañ njëriñu xam-xam mais bi lii de am emplacement bi dañoo jàpp ni amul étude de faisabilité amul les préalables yi nga moo war ci projet parce que fi xat na fii du place am bi loolu amee mu incident naroon am am ay kilifa yu baax yu ñëw woo jeunes yi waxtaan ak ñoom jeunes jàllale leen seen message comme quoi que ñun bañu ñu nii mais fi ñu ko defee la ak ñu ko defee la loolu indi kilifay koñ bi waxtaan ak commune bi le maire Issa sam Samb waroon na tukki yónnee une délégation boo xam ne ñu naan député Aminata Dieng jiite ko ak équipe municipale bi ñu ñëw dimanche ba le passé waxtaan si ak waa koñ bi bu ñu waxtaanee ñun ak ñoom ñu ne leen bañuñu bibliothèque bi mais fi ngeen ko defee la te aussi jàmmalaay dafa am ay priorité certes baax na mais du priorité jàmmalaay et on vous sur d'autres chantiers ñu ne leen nag on vous propose si njëkk ngeen jël projet bi yóbbu ko ci biir bibliothèque ndaxte jàmmalaay am na bibliothèque ba pare sax ngeen rénové waale école bi sax na école bi màgget na yàgg na boo demee fenêtre yi fa nekk année début année fin année quatre-vingt-dix ba tey ñu fa dara changé wu fa jàmmalaay am na ay priorité lu mel ni suñu dispensaire bi ngeen gis le plateau médical dañ ko war a relever parce que dispensaire bi ñu jàmmalaay di jàmmalaay ba tey nii la mus mel ñu ngi koy xaar ci d'autres chantiers tels les pavages Euh, curage caniveau yi yeneen ak yeneen ak yeneen ñu proposé ko loolu mais ñu xëy suba le dimanche le lendemain ouvrier ñëw commencé liggéey loolu nag ñu gisee ko ni du worma bi nga xam ni tukkee na ci autorité municipale jëmale ci population ndax boo fekkee dara dafa xew mu am incompréhension yéen seen biir manque de communication peut-être dañ koy tuddee moo amoon la faute à qui ñu woote waxtaan pour wax la suñu jox lay suggestion ci liñ bëgg mais nga def fii de tout ça ñu xëy suba ouvrier commencé liggéey loolu mu nekk lu doy waar nag loo xam ne ñun nag duñ ko mën nangu. site bi moomu maire bi moomu ko. le site appartient aux aux habitants de Diamalaye parce que ñu ngi jënd suñu kër fii bu ñu jënd suñu kër espace bi dafa dafa dugg ci suñu prix d'acquisition de nos maisons. c'est un espace qui qui est dédié à la population su maire bi ñëwee nag bëgg a def dara ci commune bi ce serait le bienvenu mais mu fekk loo xam ne population bi bëgg na ko. nous sommes allés chercher les plans on a les plans nous sommes allés rencontrer euh, la direction de la BHS nous a donné des informations yëpp am nañu ko on a déjà nos plaintes pour aller ça au niveau de la DSCOS à partir de demain voilà j'ai une plainte adressée. la gendarmerie de parce que y a un jeune bu nekk ci koñ bi fii a été menacé parce que y a une télé locale qui était passée ici mooy Yoff Info qui a tenu euh, euh, une petite enquête man sax intervenu avec euh, d'autres voisins am un jeune boo xam ne yëpp dans son groupe WhatsApp un du maire l'a appelé di ko menacé d'atteinte à sa vie Le jeune est allé déposer, sa plainte au niveau de la gendarmerie de la Foire. C'est un jeune qui, qui le, le quartier. ñun nag suñu cadre de vie bi fii on ne veut pas vraiment que nit ki ñëw jóge foofu jóge fa ñëw pour des raisons politiques ah bëgg a def loo xam ne fii pour la population daa fa wax